de la vie est élevé parce que c'est la conjoncture internationale qui est comme ça loolu aussi il faut que ñu les aussi yokk yokk moo tax moo tax ma ne mhm. il faut que dans le nouveau régime là nit ñu jàppale leen parce que xam nga lu tax ñu war leen a jàppale mhm. parce que les gens s'ils pensent que dañuy xëy rek claquer d'un doigt wàññi ceeb wàññi suukar wàññi diwlin non non pas non pas forcément non je pense il faut que ñu jàppale leen ñu expliquer sénégalais yi comment fonctionne le système international. Mhm. parce que kuuru ceeb kuuru diwlin kuuru suukar dafa am fu ñu koy fixé ci ay marché li tax tey sénégalais yi mën a dem ci station service bi di jënd gasoil au prix bi ñu koy jëndee ak essence prix bi ñu koy jëndee ce n'est pas la réalité du prix c'est parce que l'État du Sénégal met beaucoup de milliards. pour mhm. subventionner pour permettre au au final de pouvoir supporter le coût là maintenant ñoom ci li ñu wax ci projet bi mooy li ñëpp bokk bu ñu ko séddalee. ku ci nekk am loo xam ne ni moom nga ko def ko sa poche on pourra améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais et je pense que ci en tout cas moi les projets yi nga xam ci projet bi li nga xam ne jot naa ko ci lire et surtout particulièrement ce qui est destiné à la diaspora parce que man loolu peut-être mooy sama wàllu liggéey moom laa gën a xam je pense que cette excellente proposition qu'ils ont mis sur la table maintenant une politique publique il faut une appropriation des ko nit ñi approprié wul du dem fenn loolu moo tax ma ne

la de finances, c'est l'Assemblée qui vote. Toutes les lois de la République, c'est l'Assemblée qui vote. Donc un président a besoin d'une majorité confortable pour que li mu dig Sénégalais yi mu mën ko doxal parce que on n'est pas dans un royaume on est dans une république où l'initiative de la loi. ne leur suffit pas que opposition bi c'est ce qu'ils disent. waaw bu ñu indilee loo xam convaincant ñoom. waaw des patriotes avant tout. mais xam nga wala les jeux. de pouvoir les négociations fii tout ça c'est très compliqué on est vous savez dans des systèmes politiques on a des présidents des gouvernements qui mettent deux trois ans à former des coalitions pour gouverner da ngay gis de grandes grande démocratie voté nañu fal nañu fa premier ministre ça fait presque un an mënuñu former gouvernement parce que c'est des discussions avec des coalitions à ne pas finir et des pays européens qui mhm. sont ici et qui sont cités en référence donc ñun loolu bëgguñu ko xam nga lu nous on a des priorités de développement d'émergence dañu bëgg avancé suñu pétrole bi ak suñu gaz bi ngi ñëw ñu bëgg mu fluide ñu bëgg am une fluidité dans le processus décisionnel sénégalais ba bu ko defee li nga xam ne bëgg nañ ko def yëpp comme réforme structurelle mu mën a dem mais loolu ça veut dire avoir une majorité confortable ce que mm-hmm. je dis Mamadou de la réelle politique moi je suis pas dans des trucs de calcul politique que je parce que euh, comme je dis je suis un acteur politique c'est pas parce que je fais euh, je prêche pour ma euh, ma ma ma ma chapelle politique mm-hmm. je dis pour être République il faut lui donner une majorité gouverner. confortable pour le laisser gouverner et puis nag après bu demelee benn mandat au bout de cinq ans ñu càmbar